ETDR Events vous présente le 14 janvier, fils de Bala Lacrosse, drapeau Ousmane Sakaljen, maire de Sakal, Réunion Tchatouyov, drapeau Ahmadou Bambassar, directeur général de l'artisanat. Deux grandes affiches, une même journée, ETDR Events, le 14 janvier, sponsor officiel, établissement Toubadar Rahmar, Junou Rola, Toubadar Salam Karo, Tampico, Huile Global Textile, Kir Arab Business. fay naa la ci loone maa ngi sant yàlla waa yaa ci jàmm ngi ci jàmm baax baax tey ni nga ñëwee dafa am doole da ngaa sañse nu mu demee la parfois il faut ngay sañse ay grand pap bëggee naa la lépp jàmm mais da nga noir blanc nga la la il waaw gone nga ah gone faas daal ni la ñëw dañoo ñëw pour gunge suñu rakk rek njaga faas pour yàlla may ko ndam mais nga andi sa rakk tey naka nga ko andi waaw waaj rek la la na na lu muy def ñoo ne ko ñëwal rek bëreet ñibi daan ñibi amul leneen waaw xale la kay dañoo wane boo xam rek dem ñibi amul leneen. mais fan yi bi nga bëree ba noppi gisatuñu Ada Fass dañoo gis Ada Fass laaxatu mais ñu jékki-jékki gis Ada Fass feeñaat defaat buzz lan la. <laughs> ban buzz buzz rek. non mais gisuñu woon Ada bi gise Ada Fass benn Ada Fass lañu waaw noonu la àdduna noonu la waaw da ngay ñaan yàlla teg ay jéego quoi. mais ñu lay félicité ci xale bi nga xamante ni judd na doon jigéen defe naa ne loolu tamit mbégte la. amiin amiin kontaan naa bu baax a baax. waaw dinañ kontaan naa waaw dinañ kontaan naa bu baax. mais fi mu toll nii Ada Fass si la la nekk. Ada Fass nga entraîné mais Ada wala Ada Fass la ñu toog di récupérer. xalaatuma toog 24 heures maa ngi entraînement. barke Serigne Saliou. mais ñu bay gis ne Ada Fass bi dafa wàññeeku te Ada Fass nga entraîné lan la. mais physique la rek. poids bu amul poids la la ñu wax. ma ñu man gaw ma poids entraînement laa gëm. waaw mais ku mel ni guy gi est-ce que tamit nga yokk tuuti poids. soxla ma ko bis ba mu du ma bëree dara dara ma daan. bis ba guy gi du ëppalee daan. te dama koy daan incha allah. Ada Fass daane guy gi guy gi ku ko xam xam ne dafa coréas guy gi mu mën a xeex guy gi mën a bëree benn ñaar mu set. waa bàyyi ba balaa ma ñu am dara rek dinañ ngeen xam ne laa ko mën a daane incha allah dama koy daan ma koy daan daan. da ngay daan guy waaye yàllaa yor ndam dama ko yàllaa ko yor dama koy taalal mu may ma dama koy may ma daan ko damay daan guy gi incha allah. mais gis xale yu ci bari guy gi day leen a freiné. man mënu maa ndax nag làmb ji moom gënu ma bëgg gënu ma bëgg quoi si lépp nag si lépp. mais guy ji man ji sama saani tàccu rek moom moom moom moom 50 la man 50 amul lera, lu may ma jël ko te du may dara. nangoo guy gi ëppale la 50 50 nga ko séddale. du ko may dara may dara te laamu yi incha allah rabi maa koy gën a bëgg a fukki junni maa ko gën a bëgg a fukki junni yoon maa ko gën a bëgg te li si bët mais est ce que nga xaar ci guy mu xeex parce que Ada Fass combat yi ngi sëpp xeex bi du ci bëri est ce que bu guy xeex ak Ada Fass dina lu muy indi rek fekk ko fi lu muy indi fekk ko fi. lan nga koy wax. ñaanal jàmm rek. dadal gannaaw nag ne yaakaar ne dina ñëw ci tudd bi ndokkale si la. ah moom am naa dafa voyagé di ko rek. Ah, a baax. ah dinañ ne la rek fair play la mais dañ koy neexal waaw mooy loolu que le meilleur gagne mais ma yàlla may nam si combat. lan a xaar ci bés bi parce que Ada Fass koo xam xam. bu wóor beneen Ada Fass bu màgg nekk grand. Ada Fass bu màgg grand la grand la nekkatul booy. mais si xam nga loolu làmb yëpp dañ koy réclamer Ada Fass bu màgg. waaw loolu la yaa lay wax ni Ada Fass léegi grand a waaw yàlla may ñu ndam ñu ñibbi. kon xaar bëre bu neex Ada Fass ba mu daan bëre Ibamar mën nañoo xaar loolu. bu raw Bravo, inshallah. Bravo. Inshallah. kon Arafat fa yëg bopp. déedéet da yëg bopp lan déedéet sport la rek Fall. bilaahi sport la quoi lam boo si nekkee nekk say entraînement chaque jour sa xel day dal. sa entraînement laa jugee fii jugee ñëw fii kon man sama xel dal na quoi. dama dégg nga ne xale yaay seen droit, des arènes. waaw loolu bu ma ko waxee mooy tey man maa ngi bëreeg samay mag quoi ah ëllëg nag morom dina, bëreeg sama, rak Elek. mais du léegi bëreeguma samay morom. instant samay laay bëreel. Ada Fass lan mooy rêve ci làmb. waaw yàlla def ma champion def rek yàlla mun na lépp. dama dégg nga ne fii ak euh, saison bee di ñëwaat nga war a bëre couronne roi des gaaw na de. waaw ah, yàlla mun na lépp yàlla yàlla motali lépp yàlla moomul lépp yàlla yàlla motali lépp suñu suñu carrière si làmb suñu borom motalil ñu ko si barke yonent bi. Uh-huh. Ada Fass dama ko dégg mu ne Ada Fass lan ngeen ko dee wala lan ngeen def ci xel ba bu màgg moom ngeen di gis. moo ko dee boppam. moo dee boppam. waaw moo dee boppam. mais Adama sa xam ne bu dee boppam màgg dina naqadee jëf la. Ah, loolu tax ñu dañ sonn ci dee bi yàlla may na ko leen comme Sénégal la ñuy jaawale si xale bu toll si benn moment bu fulgu munoo ko ba mu dellu ginnaaw léegi nekkatul xale moom la ne moo ko waxal boppam man waxu moo ko de. man loolu moo ko wax boppam ngay dégg. moo màgg doon jar nekk mag ni koy yàlla suñu borom suñu borom suturaal ko. may ko non maa gën a bëgg. EDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mag bu yëngu ci BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi. li ko dalee ci fondation élevée tabax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 ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manamle lépp lu jëm ci réhabilité wala réfectionné dañu ciy établissement Touba Darou Rahman Soula la neige mën nañ la jox am gros œuvre ak second gros œuvre moi fondation élevée tabac houle ak raax ci second œuvre bi tingendifek. électricité ak plomberie ETDR amno ay boutique